aka yàgg ak moom moom mi ngi nii barki Serigne Touba Cheikh Ibra ngi nii da ya, nga ko fee xaar de sampal rek sampal rek eh, mais ay bu mag liggéey rek yàlla baax na jaajëf mais c'est waay mais yàgg ak waykat bi laa ilaha illallah bu bëli ngay liggéey rek c'est Ibra yàlla baax na mais Momo mais waykat baa ngi ni micro laa ilaaha illallah mais Momo Amare waa kër yow laa nangu duur xoolal ba kaama la duur duur bu ndaw man man su ma ma ne ko ñoo yem. <laughs> waaw ma wax da ngeen a taay da ngeen a xew taay da ngeen a xew. jël nga ñoo xale. waaw jël naa ko mais taay da a xew. jëlaatal ñoo na jël da ngeen a xew. loo wax a a xew. mais ji jëla garaaw yi. bu ma ci affaire bi mais da ngeen a xew. mais da ngeen a xew kaa bi lan la. Ah. mais kaa bi tey dafa diis. soirée bi soirée bi mooy ni muy def ni muy feesee ni muy neexee. Ah. Ndiaye loolu bëgg nga wax <laughs> ni muy feesee. Ah. ni muy neexee saf na ba noppi te kenn du ko saafali. kon may topp ñu ci biir ñu saafale ndeeku ñu ñëpp. <laughs> waaw loolu filmé may di ma filmé nga may filmé mais may nag yow koo dugal la ngay wër. <laughs> su wala ñuy jël fii taf sama kanam def ci croix. mais nu mu demee. bu ñu ma croyé mbay. léegi wuy ma wuy ma da ngeen a xew ngeen xew de ñii di ñii di yàq ñii di defal sant yàlla àdduna moom ñëpp mënuñu la bëgg bu la ñëpp bëggee rek li ngay def baaxul donc li gën a neex ci àdduna mooy am ñu la bëgg am ñu la bañ te booy liggéey da ngay liggéey ngir ñi la bëgg tamit booy liggéey da ngay liggéey tamit ngir ñi la bañ ndax ñi la bëgg da ngay yokk jom ñi la bañ da ngay yokk jom yonent bi gën di mbindeef du ñëpp ko bëgg donc nit ñi tamit ñëpp mënuñu la te yàlla dafa def ni que uh-huh. boo nekkee ci xolu nit ñi rek nekk nga ci xolu nii ñi uh-huh. waaw moom mu ngi ci xolu sénégalais yëpp parce que uh-huh. yaram tegginam mën a wëyam def lu muy def après voilà quoi yàlla baax na léegi mais mais lu ko ni nii lu waay na lu Thione lan moo tax lan moo ko ni nii bay nañ dem soirée dañoo ñëw xab yi dañoo ñëw foo déglu suñu artiste mais Cheikh Ahmed wax ji rëyam wax yu rëy na de tey ma ne ñun dañoo ñëw déglu suñu artiste mu woy lu waay wax loolu moom la lu waay mais Cheikh Ahmed waxam ji dafa rëy torop tey. kuy kooku Cheikh Ahmed Cissé. kooku àll kuy kooku kuy kooku kuy kooku. nee na kan la. daa am tudd du Ahmed Cissé. bilaay damay dégg damay dégg damay dégg. Mbaye xoolal. ah da fecc. jeex mais Kora da ngeen a xew na temps yi. Mbaye. ah. tey Mbaye. mais temps yi da a xew. xew da a xew. waaw fi nekk de. di feesal ay baaramundi di feesal ab cap 21 ah léegi tournée yi kañ lay am tournée yi. a ngi dégg muy fees. Ah. macha allah yàlla ñëpp am jàmm. Mm-hmm. affaire yi moom. mais zénith bi da ngeen dem wala du dem. zénith bi. Ah. ñu ngi ñaanal suñu frère Sidi Diop. Ah. yàlla ko yàlla mën mais di ngeen dem. parce que nag euh, moom ndamam suñu ndam la. mais di ngeen dem wala du ngeen dem. waaw non.

Ahmed Cissé li mu wax nee na da ngeen a tas dañ leen a dàq dañ leen a fase. danoo lan. <laughs> dañ leen a fa dañ leen a sa jabaru moomoo bi dafa fase moomoo tey réseaux sociaux yi fi mu nekk nii seen musique sain bi moom ñu ngi koy ñu ngi wax lu ne fi mu nekk nii. kan moo wax loolu. c'est Ahmed Cissé. ah moom xëy na moom loolu xam na ci dara man loolu man xam na ci dara. xamoo si dara man loolu lu ma xamul moom. ah non non mais mais moomoo yéen a yéen kër yéen a bokk kii yéen famille ah man ndegam du wax yéen yéen ko war a waxal. waaw. bay sama laal benn affaire wax ju ah. bari fajul dara. waaw nit da ngay liggéey rek. nekk ci ah. affaire bi waaw. Mbaye gaa ngi daal ma dagg si loo ne. waaw ah, mais maa ngi rek wala. slogan boobu may génnoon bees boobu ñoo xale moom ñëpp ko jëlaat fi nekk. bu ko ñëpp jëlee tamit benn la ci réew mi. ñoo xale ca kaw. waaw ca kaw benn <laughs> mais waaw ñu na nag loolu lañ foog mais pourtant maa nekkoon nag mais léegi. ah yaa ngi Pikine. Pikine voilà ma dem Espoir après ma delluwaat Pikine. ah ah say vidéo gaa wax sénégalais yi route retour ngay gën a am. mu ne. yan ngay gën a am. bon retour bi may gën a am. positif parce que lu baax laay lu baax laa xam lu baax laay wax. Ah. xam nga donc man évidemment ay retours yu positif rek laay am ah. ah. mais ah. mais nag du ñàkk nag des fois nga am ay. yu négatif parce que nit moom ñëpp mënuñu laa bëgg. des fois moom nga dégg yoo xam ne nii moom. ñu gis la nga concentré aussi waykat Momo Dieng kenn mosu laa gis fenn lan sa diggante ak moo Dieng lu ko indi. bon Momo Dieng nag sama xarit Bachir Kayembe moom ko njëkk daal. Mm-hmm. waaw moom ko yóbbu présenté mën naa ne soirée moomoo laa njëkk duggee soirée sénégalaise waaw mhm. njëkk a duggee ay boîte mhm. a duggee boîte mais ma dem ma daal musique mhm. di ñëw di ci jàpp di joob na succès bi est que mën ngay naan mën koo dafa xaw kii dafa xaw a yambar du wax showbiz luy loolu lu mais show bi dëgg la ni foo ay caay caay ay dugg génn nekk ban bi xam ka mais tamit show bi avant tout liggéey la ak talent te liggéey boobu ñëpp xam nañ ni moomu liggéey rek lay def def pat di liggéey doo ko dégg ci dara doo ko dégg ci waxu ñàkk fay doo ko dégg ci lenn liggéey boobu noonu nag mu yàgg a def toog ci di liggéey waaw liggéey boobu nag moo commencé fay tey waaw liggéey boobu bu commencé fay tey. Mhm. yow xam nga ni lii lii tey moom moo téye tey du lu ndaw. Mhm. lu dëgër pëcc la téye. Mhm. lu woo koŋŋ. waaw lu woo la téye. te lii day gën a ñu koy cagaw. waaw atia ñu jég ñu gis a ah, Ahmed Cissé Ahmed Cissé tey li mu li mu li mu yëg ne jabar ji tas na da koo dàq daawul def dara si jabar ji yàq ay deram yàq est-ce que jabar ji dem na. non loolu moom du dëgg quoi. Ah, am ay analyses am moom da ngeen di comprendre. Mm-hmm. donc fu bës la ñuy dox. Mm-hmm. même bu dara xewul sax dañuy créer. Mm-hmm. donc ay analyses ñooñu seeni wax ku koy jàpp wala ku koy wala ku koy ku koy considéré sax man man da nga may def erreur daal. parce que analyses vraiment ñëpp xam nañu ne analyses benn aadama. kon ak li mu wax tey. benn aadama 2.0 la li muy wax noonu yëpp ci côté Momo Dieng Jago Momo Dieng vraiment amul parce que Momo Dieng ku ko xam. xam ni jabar ji baax la ku bëgg la ah ku bëgg ay procham la tamit. mi fi ba tey. ba tey mi sànq sànq mi ngi fi woon ah xaw ma nag kon li am kon léegi fase bi xew sànq sànq sànq laa la nii mu fi woon waaw ah, ñu ngi ñu ñu ngi doxal daal dara mais lan moo tax euh, Sidi Diop gisuñu mu jox ko carte mu indil ko carte carte yi muy yi muy wër di joxe pour invitation. waaw lan moo tax mu jox Youssou Ndour. ñoo xam mi ngi wër di joxe mais gisuñu ko kër Momo Dieng. waaw xëy na dina ñëw. Hmm. parce que Momo jamono moo téye bés bi. moo téye showbiz bi. Hmm. si nag bon. forcément dina ñëw ci Momo xam naa xëy na xëy na dina ñëw. problème amul dara xewul. bu dee problème amul dara xewul. xëy na dina ñëw. te gis naa parce que waa Sidi Diop dama leen di gis fii tout le hmm. problème amu ko dara xew. Hmm. xëy na tur bi moo egseegul ci moom quoi. Hmm. dina ñëw dina egsi. ma teg ne bu mu jógee si waal foofu la waroon nga jàpp ni foofu la ah, xew. non affaire bi question ah. na fi nga gën a jege ngay dem rek. Ah. xëy na nag foofu foofu gën a jege moo tax mu dem foofu. mais yàgg yàgg yàgg dina egsi ci moom mu ñëw man loolu laa jàpp daal. xaw ma nag ñu ne ci biir ak biir mais jàpp naa ni dina ñëw. day ñëw sax nag. jaajëf ñëwul sax ñu jëli ko. ño jaajëf <laughs> <laughs> jaajëf wala boog. mën naa li ma mën a wax mooy. ñun am na yoo xamante ne duñ fi doon. yaa ngi comprendre. ñun nag boo bëggee lu leer bay sos nag. loolu sa problème la. waaw dox mais yéen yéen staff bi dañ leen a maaxal dañ leen a dañ leen a yar si bañ a tontu ba lu waay kii rek buub rek yem leen. parce que nga sénégalais dafa am maanaam sénégalais. dafa am tendance si lan. bu amul lu mu wax rek il faut mu sos. sos kat yi bàyyi ñuy sos rek. waaw ñun xam nañ li ñuy xam. kon jabar ji demul. waay loolu ñuy wax noonu amuñu ci preuve amuñu ci dara. dañ wax Eh, ah ñu ne da koo lekk ba mu set ak di ko kii wak andil ko si ah. nga ku bëgg a yàq. ah kenn mënu ci dara. Mm. yaa ngi comprendre ñun nag duñ tontu kenn ñun suñu yoon nekk ñun xam nga lañ liggéey avancé dem. Ah. ku am temps di yàq wala ngay wax nag. Ah. loolu sa problème la. mais moom euh, euh, kenn daaw ko dégg si dara mais dafa commencé jug rek gars yi commencé koo indil ay coow quoi lan mooy. loolu mooy dañ ko bëgg dégg ci dara te duñ ko mës a dégg ci dara. ñu mm. suñu artiste noonu la mel. moom moo mag la suñu lépp la. Mm. yaa ñu ko yeree noonu. noonu la mel ku ñu yarul nag ba ngay dem di wax di dugg si yëfu jàmbur war a liggéey mm-hmm. ñu dañuy toog di la seetaan rek suñu yoon ñu ne yooyu jënd si dara ak mi ngi lëmbee moom maanaam bëgg information la rek yaa ngi comprendre mm-hmm. ah, bien avant loolu noonu yëpp moom moo dafa defal boppam yaa ngi comprendre uh-huh. bu amee jabar tamit di ko defal alhamdulilah uh-huh. yaa ngi comprendre mais li ma la mën yi joxe dañu sonal seen bopp rek fausse information xam rek uh-huh. nañ wax ñoom ñoo tal wax ñun liggéey lañ dama jël falaam mais ana Gora. xar ko ñaar moo tax léegi foo dem ñu tegal la ay barrière mbay changé sa jikko ji mbay soppeekul mbay. waaw <laughs> ah, ah. nee nañ information moo fi indi. a ah, non mbay amee nag nee sa information. dafa baax ay information yu baax la ndax yow da uh-huh. mais mais mais mais loolu tey temps yi a xew. waaw damay ju damay waaw taxaw temps yi da ngeen a xew lan mooy co lan lan xew bi. mais moom ñun bi ñu xewee yàgg na de. Uh-huh. ñun bi ñu xewee yàgg na. Uh-huh. laa il ñun bi ñuy xew. Uh-huh. booba booba gaa yi est que booba gaa yi ngi way. Uh-huh. xew xew bi yàgg na c'est que problème bi mooy gars yi dañu soog a déglu musique moomoo rek. waaw dañ koy soog a déglu. xam nga des fois dafay am. ngay liggéey ah gars yi bañ ci bàyyi xel. moom it moo am courage. bu baax xam dem ba nit ñi découvrir musique bi muy def. te moom moom musique bi muy def ak ak façon musique bi muy def ak way yi muy def. ku ko déglu bëgg ko. Ah, ah. xanaa ku ko déglu naay ah, ku ko déglu. bëgg ko virus la mais lan moo tax moom moo xew ba pare nekk fii mais doo dégg si dara lan mooy loolu lu tax loolu te musique dafa ànd ak coow dafa ànd ak bruit lan moo tax loolu. su wax ci baree. Hmm. du moom bu liggéey bi baree moom la. waaw biram dara pend bu rey maamam kàcc ko dëgg moom ñun noonu lañ ko yore. ñun. noonu lañ ko yore. yaa may dégg. Euh, mbay sama loxo bi. Hmm? moo jaaxal gaañi. Ah. waaye boole ma ko ay wax. Hmm. tëgg bi neex temps yi temps yi dafa mel ne dafa am barke tey temps yi tëgg bi neex ah Kora ah. Kora Bandi la Maguette yeneen ak affaire bi nag dafa neex daal kaa ma wax la nag hmm. kaa nag. xam nga ko am kuddu doo lakk. Hmm. mais ñun créé tuñu dara ñun dañuy tëgg rek ñun ñun suñuy suñuy suñuy booy. suñuy booy ñoo indi problème ci réew mi yëpp. ñun fi mu nekk nii. xam nga suñuy création day xaw a mais mais booy laa leen bàyyi. corporant ah. da laa leen bàyyi mu mel ne walax jàmm seen taw. Ah, ah. mais mais wuy ma tey dañoo jékki-jékki Cheikh Ahmed Cissé di lëmbee réseaux sociaux yi tey TikTok bi foo dem moom moo. jabar ji da doon xam nga lu war a def. lal si jaaja dee ma dem fële kër Baye Niass di ñaanalaate te bàyyi muy def. non moom fee. Euh, tasu jàmbur yoonam nekku si. tasu woykat bi yoonam nekku si. non mais yooyu xam nga ay ay xam nga yooyu. lim naan saf na ba noppi. moom day sàppali xamul ne li muy def noonu sàppali la. waaw xam nga nee na saful xaw ma lam. déglu naa ko. ah mais moom xamul ne mi ngi sàppali fi. naan du du sama waykat ah su deful lu dul yoon dama koy wax. ak a bëgg ma moom. boo xaroon xol bi moom moo ngi ciy man maay wax ak yow boo xaroon xol bi tey. moom moo nga ciy fekk. te nag sunu gay naa moom. di sunu cappali bam bam. kon ba tey mi ngi fi. mais Dieyna moo ñu taajal reer nga noonu ba tey nii looy wax ni non comme Cheikh Ahmed kon fo. Dieyna ñu taajal parce que amoon amet bu baaxul. non ñu taajal reer léegi. tout Kora moo waaw ah moo ñu taajal reer léegi. mais lan moo tax information bi Cheikh Ahmed Dieyna parce bu safee ba noppi ku sàppali baax na ak noo mën a sàppalee. Hmm. léeg-léeg nit ñi sàppalee kaani léeg-léeg nga sàppali suukar. moom hmm. kaani la jël. Hmm. waaw xam naa da koo ceeb bu weex. jaajëf moomoo. daa am looy laajal. Euh, euh, mais gis naa fi kii euh, fan yi gis maa ngi gis gis naa fi seen bâtisseur ki nga xam ne voyagé woon na. ah ma ngoone. waaw ma ngoone. waaw ma ngoone de retour in the house xam nga moom moom moomoo ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. moom moo formé moomoo moo moo moo defar moomoo. Mhm. waaw sant yàlla bu baax. ah ma nga woon Italie. Mhm. ah loolu la waxoon. waaw nekkoon ci bagage waaw mais ça va maintenant tout va mieux. dafa gën a waaw moom dafa gën a ñëw ak yeneen i bagages. te tey boo duggee fii gis na ñëw na ak yeneen i bagages. maa la wax loolu. jaajëf.